star est-ce que ça se la diaspora génn leen génn leen génn leen génn leen daaw ah, ah non non non non non euh, pare nag ak ah, ko ñoo bu samedi nga xam ne ñoo pare. Ah, pare leen pare leen maa ngi ci dëkk bi. damay bëgg a jaaxle. <laughs> amuñu nag. <laughs> Là, on est là, The Golden Girl, Mia Guissé and The Golden Boy, Wally Seck en préparation Paris. Inch'Allah, Rabbi, concert de la Teranga. Mais doom day concert bi du yomb de ci kàttanu sunu borom. ah. Golden Girl la wax. Ah? Golden Golden <laughs> baa ngi nii. Golden Golden Boy baa Girl baa ngi nii. It's about to go down, right? Yes. Oh, xeeñ lan la lii xeeñ neex na ba noppi lan mooy xeeñ. sold out sold out guichet fermé bientôt ñu jëlagul sen ticket dem leen ngeen jëli ko gaaw ci ni mu gëna a spectacle de ouf inshallah rabbi 23h daal ah affaire yi dina jeex. boy dugg ci kër da ngay nuyu borom kër ga. so néna naa fimné ni dans euh fi quelques dans combien de combien d'heures là ça 23h légui la de rek mu jot de. ci 5 heures de temps bo jëndul sa billet war nga mëna xaarat ba ben yoon ah <laughs> daw leen gaaw.